taw démb def na fi dégâts boo xam ne dégâts bu important la ndax poste santé Hamo 5 bi dafa fees dell ak ndox dafa fees dell ak ndox ndax tamit euh, il faut rappeler que ni ki nga xam te ni moom moo nekk ICP bi fii la dëkk fii la logé donc tey boo xoolee ndox bi dafa envahi en tout cas lépp li te moom mooy logement am envahi fii nii responsable bi fi njëkk moom mooy en tout la de la commune nekk donc moom mooy le responsable parce que euh, moom la ñu waroon a gis mu daal di euh, ñu taxaw fi bon bi ma ñëwee nag xaw ma ay service am ñoo nivelé fi parce que man bi ma ñëwee ay côté numéro laa fi ñëw mais en tout cas li ma fekk moom mooy ay jeunes quartier bi ay jeunes quartier bi laa fekk ak tamit euh, ñu ut ay oto yu jéem a manque ndox bi génne ndax comme poste de santé dafa nekk benn secteur boo xam dafa sensible ndax euh, képp kuy wax wér yaram d' abord hygiène daf si am solo kon ndox bi gis nañ ni ay jàngoro rek am ay problème lay am donc loolu moo tax tey ñu ñëw jàppale ñi xam te ne moom mooy poste de santé pour gën ndox

waaw su maire mënta ñëw dafa war a yónni ku mu représenté mu ñëw waaye woo nañ ko il est au courant de ça ndaxte lii dugal ngeen ko yéen waa euh, Géejawaay fee kii du dugal ngeen ko ci YouTube bi ñëpp gis nañ ko donc maire dina gis ko ndax dëkk sa dëkk boo fa nekkee di nga xool rajo ya fa nekk ak télé xam lan la ñuy pigi le maire vraiment ñu koy woo xool na ni poste ICP bi amatu fu mu dëkk imaginer néegam salte bi foos yeeg ndox meeg yëpp jaxasoo ah bu ñu woon les jeunes du quartier tey jii bi ñu xam fu mu jëm. na ne sax doom yenn ci doomam seen i diplôme daanaka yëpp doomam taawam diplôme am a dem yëpp dem na ci ndox mi hmm. ndax jotu ko woon a plastifié néeg ba lépp de du lal du armoire du yére lépp dem te ful fule bi nag mooy nañ ko luyeel muy médecin chef muy muy muy muy maire muy le préfet même le préfet woo nañ ko jotuñu ko war taxaw ko ndax a jàppale